Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax ne ba tey ñu ngi ci ndaje mi nga xam ne mooy am fii ci Daara Koki ñu ngi toog ak nga xam ne moom moo di ko ziyaara bu baax a baax xam naa moom laaj rek moom moo di euh, li nga xam ne moom moo di thème bu am solo bi nga xam ne moom lañ jël euh, tënk ko ci li nga xam ne moom moo di tarbiya ak tanmiya ba sax mu mel ni ki laal nañ ci alquran ay bi nga xam ne moom la yàlla di wax taahama anzalna alayka alquran li tashqa waaw xam nga tarbiya ñaar yi dafa am solo ndax alxuraan ci boppam moo njëkk a wax rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaban na ñum dem ba ne dañuy wax rek rabbana atina fi laaxirati ñooñu alxuraan àddina rek lañ ñaan donc jullit bi dafa war a ñaan àdduna ñaan àllaaxira su fekkee nag da ngay ñaan àdduna loolu mooy développement loolu mooy tanmiya bi nga indi tarbiya bi nag mooy wàllu àllaaxira bi moo tax ñaari soo ko boolee su fekkee da nga bëgg a defar xale boo xam ne du nekk yaafuus ci àdduna bi parce que tamit euh, yonent bi sallallahu alayhi wa nee na jullit bi am doole nga xam ne soxlaalul kenn moo gën jullit bi nga xam ne dafa yaafus ñëpp di ko yërëm lu ñuy wax rek daanaka du bokk ci dara donc jullit bi dafa war a xeex pour àdduna bi kenn di ko fi gën boole ci tamit liggéeyal alxuraan comme ni ko xadis bi waxe nee na amal li dunyaaka ka annaka laa tamutu abadan wa amal li laaxirati ka annaka tamutu xadan mooy nga liggéeyal àdduna mu mel ne doo fi mës a jóge ba mucc waaye liggéeyal àllaaxira mel ne suba nga fi jóge donc loolu mooy tarbiya ak tanmiya bi te loolu mooy projet bi nga xam ne sëñ Mat Saxir Lo bi nga xam ne moo sanc daara bi moom laa amoon ndax dafa topp ci yoon yonent bi moom Muhammad yu la tudde boppam donc li yonent bi daan jàngale moom lay jëf waaw xam nga man euh, daara ji dama fee bokk ci lu bëree bari ndax dama fee bokk ci deret bokk ci ci jàng bokk ci tamit ci dama bokk ci réew mi li ma ci bokk ci deret mooy Chamid Sakhir loo man maam la ci man sama yaay ki ko ak moom ñoo bokk ndey baay donc man waroon naa mën a ñëw sax yor daara ji kii bi sëñ Mat Sakhir Lo dafa rey daara ji tamit ki nga xam ne moo nekkoon ci wetam euh, mooy ki ñuy wax Cheikh Ahmad Moubarak moom mooy sama waajur moom moo njëkk yor daara ji ci watu Chamid Sakhir Lo nga xam ne mooy jëwriñam ci lépp mooy doon yor jàng mi yor lépp rek bi mu fi jógee nag ci la demee Louga ba mu demee Louga ñun ñii moo ñu jàngal donc mën naa wax ne lam moom lam jàng fii la ma jàngal man mii daal di ubbi tamit di jàngale donc moo tax ma ne daara ji jàngale boole na ma ci ñetteel bi ku bokk cim réew bëgg a defarum réew lépp loo yaakaar ne luy defar la danga nga cee war a jàpp donc ñetti mbir yooyu indi na ma fi moo ma moo ma fii te kontaan naa ci lool ci teew fii.